bañ doon wax léegi ne Doudou Ndiaye Coumba Rose pour wanoon la ni ko yàlla mayoon da nga koy xool si àndam ak Julien Jouga. kan mooy Jouga. Euh, nit la woon boo xam ni sama wóllëree papa la woon xaritam boo xoolee choraalu Julien Jouga mi ngi dem ba léegi mais lu ñu xewle rek ñun famille Doudou Ndiaye Coumba Rose ñoo leen di accompagner parce que sam pappa da doon wane ni euh, chrétien ak musulman benn lañu donc ñoom woy nañ fi woy boo xam ne Serigne Cheikh lañ ko woy xam ne Tidiane ah booleeg ñoom ñu doonoon koo xam ne ñu nanguloon ñu lool li ñu doonoon moo tax bi Jules Jouga bindee musique bind ay woyam dafa ne duma ci liggéey ak kenn ku dul du Ndiaye Coumba ñëw toog ak paa bi ne ko dama fent woy wu ñuy wax jamono jile dafa laaj jàmm ju mat sëkk jamono jile dafa laaj ju jàmm ju mat sëkk ba pare neppa bi jamono jamono jamono jamono jamono gile dafa laaj jàmm ju sëkk bi def nii jule su wax jamono jile dafa laaj jàmm ju mat sëkk jamono jile dafa laaj jàmm ju mat sëkk paa bi ñëwaat Sule Jouga ne jamono jamono jamono jamono jamono jile dafa laaj ju mat sëkk jamono jamono jamono jamono jamono jile dafa laaj jàmm sëkk paa bi ñëw Sule Jouga leen ñu ñaan jàmm sunum réew ñëw leen ñun ñaan jàmm àdduna kon ñëw leen ñaan jàmm sunu réew jamono jamono jamono jile dafa laaj jàmm ju mat sëkk jamono jamono jamono jamono jamono jile dafa laaj jàmm ju mat sëkk ñu jóge foofu pour wax la du Ndiaye Coumba Rossi Messi la woon ci sabar français yi di def seen bicentenaire de la révolution di di française ñu ne dañu créer benn rythme pour bëgg ko accompagner ak chars de ak ay sabar ay jigéen ñu jël musique bi tëgg ko jox ko Afrique kun ko yónnee mënoo ko accompagner ñu am ñoom ñu am suñu benn tubaab boo xam ni moom la ñu woo nekk du Ndiaye Rose lañu bëgg jox musique bi pour mu accompagner ñu ko yónnee nañ ko Afrique mais kenn mënu ko accompagner ñu woo sampa pap par téléphone tegal ko ko musique bi muy nañ ko jox sabar ñu jox ko sabar sama papa jël téléphone am tek ni ci noppam di déglu musique bi di di essayer ni ñu wax mu ba musique bi jeex mu ne leen mais lii du dara bu ngeen ñëw ma tëgg ko ci seconde ci lañ ñëw créer français bi centenaire musique bi na pa pa pa pa pan tan tan tan tan pa bi jàpp rëb bi ah may du Ndiaye Rose bi ñu ñëwee ba jege tirbine bi nga xam ne si la président yëpp toog boobu son excellence le président Abdou Diouf mi ngi toog naxate xamul woon ni Doudou Ndiaye Rose dañu jël bi mu ñëwee ba egsi président Abdou Diouf dafa jóg ne c'est pas possible naxate ma li ma toog ñu invité ma yëpp invité d'honneur sama doomu dëkk moom moo nekk ci sarre combat bi di ñëw musique bi tubaab bi di ko tëgg paa bi di ko accompagner ak cinquante sabar ci la ko mayee woon Renaud vingt cinq ba R vingt cinq bi ñu ñëw keroog ñu teeru paa bi teeru bu rëy kon mën naa la wax ni du Ndiaye Rose tey fu sabar yegg partout dans le monde entier du Ndiaye Rose la boo demoon tey ji Japon dañuy jaamu dañuy sujjatal nag paa bi moo fa indi sabar moo ko yóbbu fu ne ba pare nag euh, di ko ñaanal yàlla xare ko àjjana parce que gisoon naa ci moom loo xam ni man gisuma ko ci benn kër géwal yàlla moo bëgg a dëgg sam papa loo mës am kër géwël yëpp lay woo boole leen ci boo ñëwee ci famille doo xam ki kii jur ak kan moo jur kii mais boo ko musaana woo ne ko batteur la soxla dana woo papaam xaritam pa wee fay di papa yi mbay géey fay nekko ko wee seng ma sa fukki xale ma Cheikh Fatma Ndiaye papa yi coo mbaay dina ko woo ne ko ma fukki xale laa moom bu mbaas papa yi mbay géey njaay Mhm. dina ko ne yónnee ma fukki xale géwél li nekk senegal Sénégal yëpp ñoom Pape Malick Guèye kenn ku si nekk mu laaj la ba bu ñu ñëwee mhm. doo xam ne ki mu jur ak ko mu jurul paa bi dafa yaataloon kon géwél yi maa ngi profité nañuy xool mag ñi fi nekkoon te yaataloon mhm. ñu yaatal man Birame Ndiaye kenn mosuma woo ci dara de amul benn géwél bu mos a organiser dara sabar maa nga am spectacle maa ñu jël la ci dara nga boole ma ci te pourtant sama baay bi muy dund de lu mu amoon rek bokk na ko kër ñëpp bëri nag ñu xam ni ci doomu géwél yi ñu ngi réew di fa daan seen doole sama baay moo leen fa yóbbu am na ku ma si waxtaan barki dem ma leen du Ndiaye ñi mu yóbbu tukki yëpp buñ doon joxee kenn ku ne un ay milliards lay doon nag ñi mu dimbali bëri na mm-hmm. waaye bu mu génn àdduna nag gisuñu kenn. waaye teewul moom liggéeyal nañu loo xam ni ñun ñu ngi sant yàlla bu baax kon donc moom yàlla na ko yàlla yërëm li ma ko nawee ci géwél yi mooy jur doom ba pare naw leen fonk leen jox leen cër ànd ak ñun tournée dinu fay ay million ah boole ànd ak ñun tournée dinu jox sunu cër ba pare mu dénk nu rek ñetti yum dénkaane yi ñetti dénkaane yooyu man biram Ndiaye Rose ci lay dox mooy lan dafa ne doom buy tukki kanam gi nga koy bàyyil dem nee na booy ñëw na nga ko ko indiwaatal muy benn ñaareel bi mu ne lépp lu ngeen mënta nekk su waxtu julli jotee na ngeen ko bàyyi dem julli ji na yàlla boo bëggee mu nekkal la da nga koy nekkal muy ñaar ñetteel bi mu ne lu leen yàlla wërsëgalee dimbali leen seen yaay ak ku ngeen mën a dimbali man jaruma ko nag yàlla bàyyiwuma pon dénkaane yooyu man ci lay dox yàlla ko yàlla yërëm taxare ko àjjana nag dund naa ba nu ma day ni xaw ma nu cigarette mel te loolu yëpp ginnaaw yàlla moom la waxtu du ma raw maa ngi toog sama kër ak sama njaboot ak sama soxna muy euh, munaas lay ñu koy wax may mën a lay. mu bàyyi la ay rakk-rakk yi topp ci sa ginnaaw ngeen ànd di liggéey te kenn ku nekk xam na ne liggéey dafay bari ay détails yu sew-sew ndax yaa ngi sóoraale loolu. waaw du si ñàkk naga ah, mais daluñu ñun ci côté euh, kër du Ndiaye Rose am na foo xam ne ñun ñooy xam ni fii diw moo ko mën dañ koy bàyyeek moom mais ñoom nangul nañ ma ni biram njaay mo mën li sam di def boma ma ak samay mag ñoma ma deug sax wara mën nañ ko mais dañ né dañu gis sam papa ci ci biram njaay nañ ko ko nangul may teug ñom ñoy nek sama ginnaw te ñom mag fuf mais ñom xam nañ ni kat du njaay rose mo nu jur jur biram njaay waye li biram njaay mën ki sama pap mënuñu ko ñu nangu nangu bobu mo waral ni boo ma may teug di nga gis sama frère yépp kenn ku ne du Ndiaye Rose moo la jur mais boo nanguwul ñu ñoo bokk bàyyi ñu ñoo bokk ndey ñii ay sët la ñii ay nangam famille du Ndiaye Rose amuñu benn problème ñu ngi si jàmm ñun ñëpp lenn rek la jooy muy xorom si te xorom gi moo doon du Ndiaye Coumba Rose kenn du moom waaw kooku la ñuy jooy nag non man xam nga am na émission boo xam ne dama ko def man ni man su ma doon fekkee fu yàlla di reyee man lay rey du rey duñ jaay rose nag man au moins aw ma benn njëriñ ci société bi te duñ jaay rose amoon na njëriñ ci société bi lool mu doon nag ku nu manqué néew ñu ñu ngi tëgguñu néew ñu voyagé wuñu néew ñu amuñu yenn yi mais demam wàññi na lu bëri ci famem leen nag moom jaaxaloon bi muy génnee àdduna bëri woon na ñu ñëwoon lool bi mu génnee àdduna jaale si ñu jox ñu seen kàddu waaye gisuñu si dara paa bi dem na mais. genre kàddu maanaam ci jàppale leen wala. nee ñu lañ daan séq ak paa bi dinañ ko séq ak yéen. duñ def dara ci réew mi te du ngeen ci bokk. Mhm. parce que boo xoolee barki démb ñu ngi def ouverture stade Abdoulaye bi ñu ubbi fii mhm. bi ñuy def pose première pierre bi sam pap moo ko tëgg bi ñu koy ubbi sam tëggu ko parce que nekku fi mais njabootam ñu ngi fi. kenn boolewuñu si ñu toog ci télé bi di ko seetaan comme tout le monde. te waroon amul seen famille koo xam ne mën na yor seen communication. moo am na ko am na man mi bokk naa si ñu ko yor Tafa Ndiaye Rose bokk na ci ñu ko yor Alaaji Ndiaye Rose bokk na ci ñu ko yor ak Ali Ndiaye Rose bokk na ci ñu ko yor ak ñu ko yor bari nañ ta nekk bitim réew kenn ku ne ñun boo contacté famille du njaay Rose di nga am seen numéro man sama numéro mi ngi TikTok. depuis lors mang ci am ay contrat yo xamni ne ay date yo xamni ne te numéro bi ñu ko jëlé ci TikTok bi bolé bo duggé ci YouTube tapé famille Doudou ndjay Coumba Rose wala tàppee Doudou Ndiaye Coumba da ngay gis contact du waa kër Doudou Ndiaye Coumba mais da fekk ni légui nit ñi ño am seen nitu bop benen bi moy nit ñi xamuñu qualité mm-hmm. qualité la ñu xam moy limay faral di wax ni sénégalais. xamul lu neex luy riir la xam luy riir bruit la ñu xam mais xamuñu lu neex waaye dama jàpp ni Sénégal fi mu tollu ak fi Doudou Ndiaye Rose toll ci aar kenn warul def dara ci Sénégal te doo ko ci boole nekkatu fi nag waaye bàyyi na fi ay takkandeer flambeau du Ndiaye Coumba Rose yaa ngi fi ñu jot seen ay droit yi nga xam ne dafa war ci yéen. waaw droit d'auteur bi nag laalaguñ ko demaguñ fa mais mi ngi fi parce que boo xoolee kilifa bu génnee àdduna foo këram xam nga am nu mu demee euh, duñu bëgg a toog waxtaan ba xam li ñu war a def lu bari suñu biir pare nag dooroon nag dem toppatoo ji mbirum droit d'auteur parce que ñu ngi ko doon toppatoo quelques kayit yi am ñu waroon dem toppatoo ji tribunal ak yooyu yëpp pour jël ko ñoo ngi si nii mais laalaguñ ko bu mu génnee àdduna ba léegi existe am na waaye tëram Japon France Angleterre Allemagne Hollande France fépp du Ndiaye Rose dafa doon jaar ay droiteur am ñu ngi koy verser fii mais ñun laalaguñ ko dañu bëgg a toog ba stable famille ba pare door ko laal. alors Jules nag yaakaar naa ni am na ci loo xamante ne solo yaakaar naa ni paa bi mi mi génn àdduna dernière yi nga xamante ne nii moom nga séq ak yow foofu la ñuy tëjee rek mën nga ñu ci ñëwaatal tuuti dernière bi nga séq ak moom ak création bi nga xam ne moom la mujj créé bàyyee leen ko. Euh, li ma gën a marqué ci moom mooy yàlla dimbal na ma am ñaar yoo xam ni ci sam pap doom amu ko ci moom mooy man la mujjeel waxal ci doom bu góor euh, man maa ko suul. parce que bi Pa Wees Sagne Faye génnee àdduna ñu nekk armeer ya dañ ko denc ba pare may dem mu woo ma waaw bi bi biñ ko dencee mu woo ma ne ma biram kaay mu ñëw ne ma dimbal leen mooy yéen ñëpp na ngeen jubali dëj ba ndax ki gaañu sama xarit sama wóllëre muy Wees Sagne fay dama bëgg yéen ñëpp ngeen dem dëj ba bu kenn tëgg tey ndax sama xarit laa ñàkk buku kenn ku di ñëpp jubal leen dëj bi man ko waaw may dem mënuma kay kay kay taxaw tuuti sa nga xaar ma parce que dafa am lu ma bëgg ba ñuy génn ma am lu ma wax ak weeseng après ñu dem man ko pap lay wax ak weeseng mun ma nit bu génn aduna mhm. da nga ko war a fàttali kuy yonenteem da nga ko war a fàttali téele alxuraanam moo tax yaa war mujj pour wax ko ñu ma toog di wax si bunt bi mu def li muy def pare génn ñu dajeeg Ismaïla Lo ma daje ak maam góor ñu taxaw jasaaga ñuy waxtaan mu ne leen kaay leen ñëw mu ne leen àdduna jeex na ba pare ànd leen ngeen nekk benn dara jaru ko fi ku xool wi tey jii V5 xam ni dara jaru ko fi dénk leen loolu ba pare dugg si oto man ma dugg ci oto bi ma duggoon bi demee ba Fass maa ngi ko seen ci biir baas bi muy joxe jaalu euh, première dame Marème fay Sall wa mom la ko jox mu ne ñu ne première dame kat mi ngi jalé teg ko ci loxo dud ku moros mi koy jaaleel ma akum ak ah, bi bari na man na dem kon ba suba ma ñew ci sarax man lool la mu jox sa dem le lendemain bu mu yewoo wona na ma ne ma birom fu ngeen nek ma ko pap ñu ñu waj dem dëj bumi mu ne gaaw leen way bu ngeen dem fenan dem leen dëj ba man ah. ma ko wa dañuy dem dëj bi pap ma tok touti sama ben frère bu ñuy wax Tafa ndjay wooma fekk am na sama ñaar rakk yu njëkk ñëw yëg nañu affaire bi à 10 heures mais comprendre ma dañ ñëw ni ma biram soo jàmm soo waa yëg xew man ne la moo yu ko dañ ma non non garaaw am keneen ku ñëw waa biram soo waa yaa si jàmm soo waa bien naxamu soo waa di ñuy kii man la mais yéen kaay leen am na ko fi ñëw sànq ne ma na yëgoo li xew yow tamit yaa di ma laa laa lal moo xew mm. ñu ne ma non mais dañ lay laaj rek garaawul ma ne kon ma tok tudi sama téléphone sonné muy sama frère bu ñuy wax Tafa ndjay mu ne biram sawa yaay jam man ko maa ci jam jàmm mu ne ma fo nek man ko maa ni souf suuf immeuble mu ne ma est ce que mun nga déplacé wu tudi ma déplacer wu mu ne ma est ce que mun nga ñëw ñu and parce que il paraît que pa bi do feebar ba ñu woo ma ma ko pa bi déggante nak mom léegi ma ah, dafa feebar de dafa feebar wa lé kon léegi yow ma ngi lay xaar souf comme da ngay wacc sa auto ngay jël bo mo bo bo yaccé ñu and quelques minutes ma gis sama benn Euh, jarbaat di doom ci maam su euh, kii maam les Thioune mhm. ñu koy wax maam Sifi wàcc ñëw di jooy yéeg ma ne waa mais moom ci wàcc oto bi di yéeg di jooy ak booy liñ ma wax tafaa woo lu xew xaaral ma ma yéeg man xool ma yéeg tafaa ne ma i ma booy ma mun a ma taxawal ma tafaa lan moo xew yaa ngi ma woon paa bi de fex peut-être booy suuf ku nekk di ma wax nag yëngal xew lan mooy sa problème mu ne ma non du tara xam nu bëgg yow laa bëgg yow xoola ma boy man ko tafa man daal du ma xale quoi nga may wax ma boy man naa mais waxal man la mooy sa problème mu ne ma biram maanaam mun ma ah paa bi daal moo feebar man ko tafa bu ma wax paa bi moo feebar wax ma rek lu xew quoi parce que man tamit du ma xale quoi mais ngeen may kale kale ni mu ne ma waa paa bi moo génn àdduna mu ko paa bi moo génn àdduna keroog xaw ma fan laa jaar dama daw eh, nit ñi ñoo ma téye benn bitig bu nekk fii pendant une heure de temps ba ma xam fan laa jëm ma jël taxi dugg si dem euh, hôpital principal ñu fekk sam pap ñu teg ko ci benn sario mm. mu ñoo fekk fa mam les suur mu ne ko les mm. asam ah, pap mu ne ma biram yow lay waxal kay yow réeñ caaxal pa bi mi ngi si jàmm ma ne ko maam les waxal la man mu ne pa bi mi ngi ni duma muree pa bi gis pa bi dama né non c'est pas possible ma dund ci mom lolu nak mu doon ko xam euh, doom yi mu jur bari na mais man dama amone lo loo mu ne mako wax dal parce que paa bi fan laa koy jooyee bu tamxarit jotee tamxarit ci laay jooy paa bi man parce que tamxarit day rey ay nag xam ni moom sama yaay dafa tàggoo ak moom mais su reyee ay nag danaan balaa may yóbbul kenn dara ni nañu yóbbul Biram Njaay ba pare nu ma buñ ma woowee wala am ñoo xam ne duñ ma woo moom moo may woo foo nekk man ko maay mënoo ñu fekk mu fooraa léegi ma ñëw fooraa woo ko mu génn bu génnee mun ma Biram ànd taxi ma man ko mun ma am fayal an indi nga indi nga foo def ndaw man ko pap indi moom dama jënd fi ay sac ma dem jënd sac ñu rey ndawal yi defar mu ne defar leen Birame Ndiaye bara kenn di yóbbu mooy sama doom defar leen ko ba pare di defaral ma ma yóbbu mu bu tam xarit jotee may wër ci jàkka yi di jënd nar wala nangam sama xalaatee sama papa rek damay jooy yàlla na ko yàlla yërëm mais manqué na ma lool man parce que man moo doon sama secours ci yu bëree bare bëri man sama papa la am moom dimbali jàppale ma yóbbu fune ne na naa àdduna naa fu ne loolu yàlla dogal si moom dama koy nangu mais du Ndiaye Rose amul amul yàlla ko yàlla yërëm taxare ko àjjana. ñu ngi ñi ngi yàq ñi ngi yàq waxtaan bi ñi dañ koy bàyyi mu tëj dañ koy bàyyi mu tëj man dama bëggoon foto bi photo bi nekk ci ginnaawam <laughs> mu mu mu mu présenté euh, spectacle la woon bu amoon euh, Sorano moom moo doon dirigé ñun ñoo nekkoon nii ci ginnaaw nii mais dafa am benn euh, association bu nek fi buy jappelé sama ben xarit mu Cheikh mbay di président mouvement sa deug deug ñoo defar ñaari poster ben bi ñu def ci Cheikh mbay ak elage Mansour mbay ben bi ñu def Birame Ndiaye ak elage Hadj Doudou Ndiaye ñoo ko jox mais image bi mom 4 avril la won en face ambassade Mauritanie biñu né ñu ngi départ parce que bu ancien combattant yi rombee rek ñun ñoo si ci laa ko takk nii di xool position bi nag taxaw na booy bi photo ma nii moom moo moom moo nekk nii mais bu ko xool déguisement bi bu paa bi la mais bii sama bos la defar parce que bokkuñu parce que bu paa bi ak gorom ba bi dañ ko yóbbu grand jox leen ko ñu teg ko ci hall bi pour wane déguisement Doudou Ndiaye ak wane sabaram gi nga xam ni moom la doon tëggee moo tax galañ bi mujjee tëggee déguisement bi drapeau Sénégal bi ak sabar gi nga xam ne moom la daan tëggee ku dem grand théâtre di nga fa fekk sabaru Doudou Ndiaye Rose yi mu njëkk am ci bi mu amee à l'âge de dix ans. Euh, ci fi waaw gis nga gis nga gis nga li mu def nii. Mhm. xam nga maa ngi koy wax sànq ci ay loxoom lay waxee xam nga sànq maa naan la su defee nii su defee nii mooy wane nii dañu war a téye galañ bi mhm. léegi nag moom. am na benn instant boo xam téye na ko nii mais am na benn instant def ko téye def nii loxo bi di waaj di wax ni ñu ngi waajal benn rythme nii kon war ne nii rythme bi ñëw bagget lañu ñu war a njëkk commencé moo tax loxo bi jógul daal di yëkkati loxo bi nii wane ni baguette lañ jëm wàcc loxo bi nii mooy su nee nii rek ñun dañu war a ñëw immédiatement daay tëgg man nag fii dama wane ni sabar ñaari loxo moo koy tëgg mooy dama teg galañ bi mais teg loxo bi ça veut bu ma nee mbattaas war naa si mën a teg pax moo tax ma ne wanee nii daal di nii mu wanee ni sabar lii moo koy tëgg te nag li si gën a am importance mooy te dinaa la wax ne la sabar bant bi warul dépasser digg bi mu nekk nii parce que boo ko tegee fii mhm. danga koy xotti parce que fii lay comme fii lay accordé fii lay gën a wow moo tax bu dépassé ñëw fii rek boo tëggee rek mun naa xar sabar gi moo tax fii la war a yem moo tax ma wa jàngale ko nii yemale ko fii fii la war a yem galañ comme ni ma doon tëggee léegi nii ne nii parce que bu boo ko dóoree fii ak fii ni mu woowee day xar fii la war a yem nga ko tire à sa fin ñu bàyyi la nga tàggoo nag. bon di leen gërëm ah, di leen sant di ñaanal sam papa El Hadj Doudou Ndiaye Coumba Rose na xippee àjjana eh, di wax ni njabootam tamit maa leen di tàllal loxo ñu gën a nekk benn ni mu ko bëggee woon ñu doxalee noonu eh, di wax tamit nii senegal nañ ñaan jàmm am fi ndaxte fi réew mi toll laajul sunu senegal mel noonu nag Sénégal dafa am ñoo xam ni ñoo ko mooñ. muy ku mel ni Cheikh Ahmadou Bamba Xaadim Rasul ku mel ni mam maam Alaaji Malick maam Limaamu Laay maam Baye Niass maam Boukounta Ndiassane maam Canaba Canaba ak ñi nga xam ne ñooy xalifa aada yi kon ñooñu war nañ leen bàyyi xel politique nag du dara yàllaay fal ku yàlla fal ñu xam ni moom la ku yàlla li ñu xam ni kii la yàlla li kii la fay indi mais xeex be xuloo bi daal ñu ngi tàllal loxo ñi nekk ci pouvoir bi ak ñi nekk ci Euh, opposition bi ñoom ñëpp ñu xam ni rek li mbirum àdduna la te yàgg-yàgg ñun ñëpp dañuy dem nanu bàyyi xel ci loolu yàlla yàlla def jàmm eh, ci réew mi jaajëfal naa ko moom biram bu baax a baax ndax yaakaar naa ne nag lépp loo xamante ne nii lënd moon nañu ci sabar rek leer nañu waaye lépp loo xamante ne nii tamit umpale woon nañ ko ci suñu papa ju baax jooju fi jógee tamit leer nañu jaajëfal naa la yow Gilles mi nga xam ne saa yu mu jógee nga jóg jaajëfal naa ko kullukum ak képp koo xam ne yaa ngi seetaan infirmier bi ba beneen yoon